ñu leen fay di remercier suñu mag nek ba États-Unis muy Macodou Sall di remercier nak la presse ma ngi leen di remercier bu baax ndax respect bi ngeen di dawal suma digënté ak yeen gis na ko respect bi ngeen di dawal sama digënté ak yéen dafa yag te gis na ko kon liggéey bi ngeen di def yàlla na ko sunu borom barkeel ndax ñu ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg muy le Sénégal ay de l'avant man leen di remercier bu baax a baax a da ngaa a woy ndeysaan yow doo moroomu moo la dàqa rek respect bi nga ko jox la mais yow say octave ak sa baat yow kenn yoru ko ci àddina yow da a a dox dootoo pour fii respect ak bëgg sénégalais yi moo tax nga leen di mosal mais yow xoolal maa toog nga toog États-Unis ñoo la soxla ak Europe ak Asie Océanie Belgique ak fépp yow naanaan nga yow ñëpp lay jox respect yow yow ñëpp lay jox respect yow lay mënoon kenn yow gore nga baax nga doo def dara ngir gistal koy may da nga koy nëb yow Pape Diouf li ngay defal barki Seydina Mohamed Seydina Mohamed buñ ko def ngir ko maa ngeen dégg barki Seexul Xadim laa la wax Serigne Touba rek laa yaakaar kii li muy def te kenn ko buñ ko waxoon àdduna barki yaa Rasulullahi du def dara pour kenn gis